waaw waaw ci con ci exposé des motifs. Hmm. ah Abdoulaye Wade na ko ci Sénat bi de. <laughs> muy doog toog. ah de ah, ah, dama koy dindi. mu falu dindi ko far far wut leneen. Karayees la xam waaw Karayees ah itam bi ñuy laaj réew mi noonu ñaar na ma ah c'est des institutions budgétivores. ñu ñëw daal di dindi Sénat. <laughs> te te au conseil des collectivités teritorial en réalité euh, li mesure ñu Faye évoqué lool moy argumentaire bi nga xamné mom le la politicien yëpp di wax Sénégal kon ginaaw man dama féri nax dama japp né ay nax nga ci biir ba légui ben la motax tax len bonne foi. ah dé al ah, tax jox ma leen bonne foi. oui liñ ma wan. si nak fa lu wa passé dañ ma ne woon am nañ projet bo xamné ñent ñeenti junni borom bi xam-xam ñoko bind. mo né bokk na ci exposé des motifs ah. pour un projet. waaw ñoom ñoo ma am nañu projet bo xamni ñent ñeenti projet plan Sénégal souverain ñeenti junni boroomi xam-xam ñoko bind waaw biñu falo dem conseil des ministres Ousmane Sonko ne mi wut na créer na groupe ci à la euh, à la primature ño xam ne ñoo bind projet bi dañ ko nopi de euh, septembre au plus tard fin septembre au plus tard kon man projet bi ñuma ma te am ñu dig ma ne hmm. suñu falo ñom dañuy dépolitiser l'administration manam dama tank yi ñu joxe directeur des sociétés directeur généraux directeur yooyu nee nañ dootuñu ko jox nit parce que daa bok seen parti wala day seen bokk dañ ko jox nit ndax yàgg na yàgg naa liggéey ndax euh, am ku xarañ la ndax ku jub la ñett yi la ñu wax ne mooy critères yi ñuy tànn ñi ñuy jox Dakar port ay ay BD APIX ak RTS nee nañ ñett yooyu la ñuy def ah biñ fa ba léegi defuñu ko ñu teg ci hmm. tegon ci ne ñoom président la di génn conseil supérieur de l'administration moom premier ministre la waaw ñett yi lañ ma dig te defuñ ci benn nga bëgg explication yi ma jox ma gëm ko benn de tous les engagements yi passé man waxagul bii dong nag lañ ci bëgg a réaliser maanaam lañ ñu digoon lépp defaguñ ci dara bii daal lañ bëgg a def. mais lii lii ngay wax lii nga lim nii weesoogul de. non non non waxuma mais defaguñ ko laa wax ñoom moo weesoogul. waaw mais mën nañu am ordre priorité sañ ngaa loolu sañ nga loolu. xam nga man nit ku ma dig ñetti yëf. <laughs> la ba nga faloo ba léegi defoo ci lenn. boo ma layalee ne li tax nga bëgg a dindi au conseil des conseil économique social ay ay pour yaxanal xaaj la. du ma ko gëm parce ni ñu maanaam ni ñu man dajalee ni ñu mën a dindee lii pour pour jaxasaxanal xaalis. Hmm. am na yeneen structure yoo xam ne nañ koo dajale. yaxanal ko xaalis bu bari mais yooyu yaxanal ñu dindi wuñ ko parce que dañ faa dugal seenu nit alors que pour le moment conseil économique social environnemental au conseil des collectivités territoriales Bassirou Diomaye bi mënu faa dugal kenn kon fi mu mënta dugal nit la bëgg di sutur. waaw waaw mais mais léegi euh, yi ngay wax ne mën nañ ko boole même buñ ko boolee xay na mën na bañ a wàññi budget bi euh, mën nañu jël def ay transfert de crédit yu ni mel alors que lii buñ ko dindee day am 15 milliards yoo xam ne danañ ko mën a jël dugal ko feneen nag en 2025 nag ah, déjà xam nga boo boolee ñetti ministre ministre la culture de de de la culture de la jeunesse des sports ñetti ministère la woon nangu nga boole ko muy benn yaxam naan nga fa salaire ñaari ministre ak ñaari directeur de cabinet ñeent wala juróom benn seet conseil n'est-ce pas donc encore une fois kon maanaam lii li tax di ko dindi pour man alay euh, la rek boo xam dañ ko def ba waxoon nañ ko nag ne dañ koy dindi kon buñ ko dindee manes na manes naa jàpp ne sañ nañ koo dindi parce que bëggoon nañ ko dindi hmm. deuxièmement aussi fi mu ko jaare ci wàllu proposition projet de loi pour assemblée nationale abroger hmm. article yi nga xam ne moo concerné la euh, le conseil économique environnemental ak cachet loolu am ci sañ tañ maintenant hmm. ñi sañu ta conseil des collectivités territoriales. oui ñi sañu ta dindi le conseil économique social et environnemental. Hmm. mooy député Benno Bokk Yaakaar. sañu ñu koo dindi. sañ ñu ko dindi ak waa PDS. ndax. parce que ñoom dañ ko fi ñoo ko fi indi. le conseil économique social environnemental mi ngi am na Sénégal depuis 1961. jamono jooje Mamadou Dia moo nekk président du conseil mi nga xam ne Ousmane ko boolee na ko ci ñi mu ne ay royukaayam lañ. mu nekk fi Senghor jóge fi nekk fi ba Abdou Diouf jóge fi. nekk fi ba Abdoulaye Wade jóge fi nekk fi ba Macky Sall jóge ay modification yu ndaw moo ci soppeeku muy lu mel ne euh, environnement bi ñu ci dolli ak le fait que ñu may ay sénégalais par voie pétitionnaire ñu mën a wax ñu mën a saisir le conseil économique et environnemental. kon encore une fois ñoom Bassirou Diomaye Faye sañ nañ koo bëgg a dindi. Hmm. yooyu daal yoon bu yoon dindi ko la waaye ñi ko wërta dindi muy député de Benno Bokk Yaakaar parce que député Benno Bokk Yaakaar ñi ma la wax ñëpp dañ faa daje ak waa moy wa PDS nga fa wa parti socialiste maanaam ñi nga xam ño tabax senegal ño ci ñi ngi benno wala nam tuddati wala wala walu amna fa ño xam ay non inscrits lañ moy ñi ànd ak Khalifa Sall taxaw senegal ak wa PUR wa seigne Moustapha Sy parce que bu ko kenn fàtte sëñ Cheikh Amadou tiant ci taxaw senegal bokk kon nag ko fa japp na ne loi bi mom ña nga xam ñu ñoo ci assemblée nationale waru ñu ko waru ñu ko adopter dañ ko wara rejeter mais buñ ko adopter wul ci walu politique euh, comme ni ko ñu bëri di waxee. est-ce que duñu euh, dem à l'encontre de la volonté populaire bi nga xamné ñoo tax ñi à à 54 na leen na leen na leen doxal leen. oui. allo référendum bi nangu <laughs> ñaari institution yi. oui ñëwate wuy. ñoo ñoo ëpp ñoo teel Bassirou Diomaye. amoon na pour cent de. kan 68 xaw ma. référendum waaw ba. oui ñoo ëpp xam nga nag ñoom souvent dañuy ñoom xam nga parce que dañuy nax di nax di nax nit ñi ba far ñuy nax seen bopp léegi ma dégg ñu naan 54 pour cent des Sénégalais ñoo leen wote kon ñu dëgg 13 pour cent des Sénégalais ñoo leen wote 33 pour pour cent des électeurs. un tiers des électeurs. waxuma ah. des ñu nekk ci fichier bah, électoral du fichier électoral 33 pour des votants. mais ñoom nag boo 54 C'est 50 50 pardon c'est 13 des des sénégalais qui ont l'âge de voter Ils am plus de 18 ans maintenant ñu nekk ci électeur effectivement ñu nekk ci fichier électoral 33 pour cest lañ à dire 66 des sénégalais anduñu ak loolu day mel ne looloo doon Macky Sall looloo doon Ablaye Wade looloo doon Abdou Diouf. Macky Sall bi mu jàll élection premier tour 58 pour cent la jàll. waaw pour cent mais mais Sall non mais Sall boo defee sa calcul bii eh, ñaata Sénégalais. Macky Sall déjà li mu am li mu am li mu amoon rek 2 millions 500 yi premier tour. premier tour premier tour de de. non 2019 ngay mooy. non mais opposition ñëw gagné la <coughs> Ablaye Wade même deuxième tour la jàlloon 2007 Ni kii nag problème li bees effectivement mooy un opposant bu am premier tour mais damaa bëgg maanaam nax gi ñuy nax seen bopp ñu bañ a nax seen bopp maanaam li ma leen def nii c'est une consultation gratuite ba ñu xam ni ñi ñiy ci Sénégal bu ñëpp wote ji 33 pour cent yi la am muy un un tiers bu fekkee Sénégal yi yëpp mën a wote ñoo wote woon ñooñu un 13 pour cent lañ ci am kon encore une fois fi ñu teg seen bopp nekkuñu maintenant. lépp solo nag mooy ici en revient mais un ñoom waa Pastef digoon nañu ne daañu dindi conseil économique environnemental daañu dindi au conseil des collectivités territoriales daañu dindi au conseil du dialogue des territoires et dialogue social boobu laa la buñ ko danaa ci ñëw <laughs> ma léegi daal sañ nañu ko bëgg a dindi. bu innocence tam Ndiaye jiite ngay wax waaw.